feebar bi comme ni nga ko waxee mi ngi Sénégal gis nañu ko yëg nañu ko euh, donc moo tax mesures yi nga xamante ni bi moom la ci état jël euh, franchement dañu koy apprécier parce que nekk na ay mesures yu responsable ay mesures yoo nga xamante ni bi jàpp na ni war na mën a tax que ñu ñu ñu ñu empêcher feebar bi à ce que mu gën a law à ce que mu toucher ñoo xamante ni bi danoo gën a bëri euh, sauf que yéex nañu ko def certes c'est yéex nañu koo def mais bon jël nañu ko donc na na na Sénégalais yëpp fexe sàmmonte ak mesure yooyu noonu nga xam ni moom la état jël quoi. jël si transport bi gis nañ ñu bëri loolu la ñuy ragal nee nañ ñu bëri sax euh, c' est un bombe à c' est retardement parce que li muy feesee bus yi jéggi na dayo te feebar bi lu muy lawee gaaw na est ce que tey jii côté boobu noonu état mu ngi ciy bay waaram. waa yaakaar naa ni état mi ngi ciy bay waaram parce que comme on n'est pas dans les secrets des dieux xamuñu exactement ce qui se passe au au niveau de l' mais mais pour man transport moo nekk problème boo xam ni moo gën a jafe contrôler surtout fii au niveau du Sénégal parce que tey mën nga tere regroupement di am mën nga dégg ni rencontre am na bërëb sàngam nga dem arrêté ko mën nga dégg ni boîte de nuit mi ngi ubbi nga dem nga dem tëj ko yooyu yëpp c'est des yoo xam ni euh, mën nañu ko contrôler mais par exemple bus tata yi bus dem dikk yi wala njaga njaay yi ak super yi et tout mais kan moo ko war a contrôler ak nan lañ koy contrôler parce que mënoo xam exactement comment est-ce que ban système ngay teg en place ba ba mën a contrôler effectivement nombre bi nga xamante ni bi moom la moom la transport en commun yi di ñëw dafa doy les gens sont obligés de sortir parce que Sénégal suñ borom dogal na ni ñëpp mënewuñu seen bopp à 100 pour cent on a du mal à joindre les deux bouts et les gens vivent au jour le jour moo dañuy xëy tey lijjanti ndekki suba añu suba ak reeru suba noonu la ñuy xëyaatee suba dem lijjanti li nga xamante ni moom la ñuy dundee gannaaw ëllëg donc il faut que nit ñi di génn il faut que chauffeurs yi di dawal parce que les gens ont besoin d'aller en ville d'aller quelque part pour se trouver de quoi manger mais c'est un énorme problème boo xam ni mooy mooy mooy en fait ça c'est c'est effectivement ça parce que xam nga surcharge boo seetee Sénégal depuis kañ ñu ngi ciy wax su ma juumul bi bateau la amee nit ñi dañu doon teg chauffeur yi ay daan di leen defal ay attestation ku ci surchargé benn nit bu ëppee sax su ñu arrêté la defal la attestation mais après dafay loo nga xamante ni bi nit ñi duñ ko maîtriser à cent pour cent ba tey yaa ngi gis surcharge donc tey est-ce que mesure yooyu noonu ñuy jëloon est-ce que dinañ ko appliquer waat wala est-ce que dinañ xool lu ñu ko gën a parfaire de sorte que chauffeur boo nga xamante ni bi def nga surcharge mais ñu teg la ay daan yu am solo comme ça loolu mën a servir d'exemple aux autres chauffeurs pour que au moins ñu respecter le nombre maximum bi war a am ci ci ci ci bus yi bi war a am ci njaga njaay yeeg ci kaar yu demee noonu je que donc c'est c'est c'est c'est le moment d'alerter la police wala la gendarmerie ñu gën a exigeant ci côté surcharge yi ba chauffeur bu ci romb benn nit que ñu bàyyi yooyu nga xamante ni bi ñu ngi koy faral di dégg mooy régler ko jox la benn 1000 francs wala benn 2000 et tout non mais nañ la attester nga dem fay. defe naa bu ñu la ko defee benn yoon ñaar yoon dinañ ci bàyyi xel bu baax mais il faut que également prise de conscience individuelle am mooy nit ki boo gisee ne auto fees na nga bañ cee dugg ndax yaa ngi sàmm sa bopp mais yaa ngi sàmm également nit ñi loolu aussi beneen problème la chauffeur également ñu fexee respecter nit ñi de sorte que bu seen oto feesee ñu bañ a taxaw ci arrêt di xaar beneen client bu ñëw donc prise de conscience individuelle boobu noonu fii amul dina métti parce que état état mënul teg policier ci ginnaaw sénégalais bu nekk naan la defal lii wala defal la ñun ñëpp nañu jàpp ni état lañu ñu génnee suñu bopp côté étiquetage politique wala étiquetage ethnique ou confrérique ñu xam ni lii musiba la balaa la boo xam ni dugg nañu ci réew mi et il faut que ñu booloo ñun ñëpp teg loolu loxo pour que affaire bi mën fee jóge quoi. beneen mooy ñi ngi ñi diw génn si réseaux mën nañ faj feebar bi charlatan yi est-ce que tey jii nii jotul état régler ce problème définitivement parce que problème bi problème bu sérieux la. effectivement c'est un problème très sérieux et on salue l'initiative quand du ministre de la santé et de la prévention euh, gis nañ ni mi ngi déposé na benn plainte pour nit ñi nga xamante ni bii ñu ngi génnee genre information déjà naan feebar bi amul ci réew mi wala naan ñoom mën nañ ko faj voilà donc lu ñuy lu ñuy apprécier la et que pour man ñu ay raykatu nit lañ ay assassin lañ ndax. Euh, dëgër fit weesuwul feebar bi ak fa mu jaar yëpp ak la mu fa def yëpp nga war a taxaw Sénégal ne feebar bi amu fi wala nga war a taxaw yow ne mën nga koo faj foo ko jàngee ban remède nga am boo xam ne mooy faj feebar bi. moo tax ku ci taxawati rek wax lu mel noonu nan la woo ni nga dem wane ay preuve ni feebar bi amu fi wala ni mën nga koo faj bu fekkee mën nañ ko faj ek am nañ ay preuve mais ça va alhamdulilah mais bu dul loolu rek nañ leen teg ñoom ay daan ndax réew mi dañ war a toll foofu en du ni lu neex waay wax te du mujj fenn lu neex waay def te du mujj fenn il faut qu'il y des sanctions qui pèsent sur la tête de chacun de ce pays mooy tax nit ñi am benn responsabilité boo xam ne nañ ko def c'est ça le problème aussi. beneen bi mooy prix yuy augmenté de manière vraiment rapide exagérée tey jii nii ñu bëri amuñu mooy pour se procurer se procurer de ces produits yoo xamante ne day nettoyer loxo wala et cetera te ñu yokkal ko ba nit ñi amaguñu accès est-ce que loolu. esprit patriotique la non mënul sax nekk esprit de patriotisme mënul nekk sax yëfi nit à la limite euh, man dama dama dama bokk si ñi nga xamante ni bi bi sénégalais yu dajaloowee di xeex entreprise commerciale française yi fi doon dugg di jaay seen ay produits ñu naan diw dégage diw pour ne pas faire de la publicité mosuma cee bokk te tey euh, dama dama dama gën a dama gën a wax alhamdulilah bi nga xamante ni mosuma bokk ci xeex yooyu tey boo xoolee butéelu gel yu ndaw yi nga xamante ni bii ay 400 la doon jar tey ñu ngi koy jaayee 700 yi doon jar 1500 2000 tey dem na ba àgg ci 7000 francs ci koo xam ni pour mu ndékki pour mu añ pour mu reer c'est tout un problème nga bëgg ko jaay benn produit gel mais boo xamante ni bii da koy def pour protéger mais pour protéger également nit ñi mu nekkal nga bëgg ko jaayee à 7000 francs mais c'est un énorme problème man du ma jug ci di ko wax du ma jug ci di ko ñaan képp ko profité ci situation yu mel nii pour am xaalis yàlla bu xaalis bi jëkk yàlla na la xaalis bi laq parce que non mais c'est c'est c'est inhumain ce que les Sénégalais font te tàmm nañ di ko def est c'est le moment aussi de de de d'alerter peut-être euh, les services du ministère de la de du ministère du commerce pour que tam ñu jéem a ñu jéem a activer seen ay services seen ay agents ñuy def ay descentes ci point de vente yi di contrôler prix yi parce que ñoom également am nañ ci part de responsabilité il faut que tout le monde s'y mette c'est bien élan de solidarité xam nga saabu yu mel ni amee rek élan de solidarité yi day jug day am nit ñu bëri dañuy voilà ku nekk rek da ngay jéem a teg sa loxo ci affaire yi ni muy demee mais dafa am benn benn connotation bu ndaw boo xam ne man dama koy xaw a ñaawlu ci affaire yi mooy souvent les gens pour ñu mën a maye cinq millions pour ñu mën a maye deux millions dañuy dem ci télé toog fa ne joxe naa sàngam wala joxe naa sàngam te ñii di may tey ay cinq six sept dix millions c'est sûr que seen koñ bàyyi nañu fa mais beaucoup de sénégalais yoo xam ni am nañu problème pour jënd gel bu 600 francs wala gel bu 500 pour man li gënoon a pertinent mooy ñoom fa ñu dëkk ci commune ba ñu nekk ñu jël fa somme boobu noonu jënd ko ay gel mais jënd ko également ay nourriture si le faut. liggéey ak la municipalité liggéey ak les délégués de quartier ak les imams et les prêtres pour que ñu xool nan lañ koy organiser woo ba population bu nekk mën cee jot imaginez nous bu fekkee on est quarante cinq départements dans ce pays commune bu nekk wala département bu nekk ñu organiser woon noonu yaakaar naa ni mooy tane ñu bëgg a jël lépp dem concentrer ko au niveau du ministère bu boobaa dinañ sonal ministère mais dinañ sonal également population bi tey dégg nañ fi ay nit ñoo xam ne jënd nañu ay gel mais à hauteur de de dix millions mais kenn gisu ko je di pas ko joxe wuñu ko de mais peut-être que man sori naa sori goo xam ne pour ma jot ci dafay nekk problème du moo tax bu fekkoon à la base tey nga def ko sa kër génn def ko sa koñ man ma def ko sama koñ keneen ak keneen def ko koñam foog naa ni loolu mooy gën a dem di toog ci télé nenoo dañuy organiser téléthon pourquoi faire c' est bien nag c' est bien élan de solidarité c' est bien mais pour man daal stratégie bee man laa gënoon gis l' autre chose aussi mooy da ngay gis dans un même quartier ay jeunes yoo xam ni dañuy jug ku ci nekk defandoo sa initiative personnelle bopp. ne da nga lancer benn collecte de gel mais à côté tu vois qu'un également et en train de lancer également benn collecte il faut que ñu ñu ñu ñu unir suñu ay force loolu rek moo ñu ciy dimbali. il faut que ñu unir suñu ay force xam ni li ñuy def c'est dans l'intérêt de tout le monde sama intérêt la mais intérêt également population bi la loolu rek moo ñu ci mën a génnee mais quand même on salue l'initiative sauf que ni ñu koy defee man moom laay décrire personnellement. waaw ouais bon di leen remercier encore une fois de plus opportunité bi ngeen ñu may pour ñu wax ñi nga xamante ni bi noonu la ñu gisee ci li ñu dal. ñaan suñu borom dimbalinu ba feebar bi fépp foo nga xamante ni bi àgg na ko yàlla jëlee ko fa te loraange yi mu jot def aussi mu yem fa di di lancer waat aussi appel à tous les sénégalais ñu xam ni li c'est pas des blagues et que euh, il faut que ñu respecter mesures yi nga xamante ni bi président de la république joxe na ko parce que dafa ko ci coobaree boppam mais il a donné ses mesures il a pris ses engagements là pour que tey nit ñi mën a mucc ci feebar bi pour que feebar bi fi mu jot a aussi mu bañ fa bañ fa jóge di law feneen quoi asalaamaaleykum thank you